maa ngi leen di nuyu yéen mbokk yi fi rajo yéen ñëpp ci turu Cheikh Mahamadou Mountakha mais sunu kilifa di kilifa ak yoon wi yëpp di kilifa di borom dëkk bi lu waaye def ci dëkk bi moom koy defal te liggéey bii ñu doon def ba si fii tey te liggéey boo ko ñor lool bu fa ay kilifaam nekkee moom moo daan jiite nettoiement depuis moo daan jiite lu jëm ci luy seetal dëkk bi ndigal loolu mi ngi jóge woon ci sëriñ Mouhamadou Lamine Bara mu xam ko ne ko dama bëgg ñuy seetal dëkk bi balaa ñu la booru sëriñ Touba gee ñëw balaa gani sëriñ Touba ñëw ñuy seetal dëkkub sëriñ Touba bi bi amee sëriñ ñu taxawal comité bi nga xam ne mooy saytu mbiru màggal gi te sëriñ Bassirou Abdou Khadir di jëwriñ ji ñu tegaat liggéey bi lépp lu ci loxoom ci lañ ma féetalee man luy nettoiement luy affaire assainissement luy tax luy yombalal ñi siyaare ci magal gi seen dem seen dikk luy yombal kilifa yi seen nekkuwaay ci dëkk kër yi lépp ñu dénk ma ko te parce que Cheikh Abdou li may wax toujours mooy naa koy wax ñëpp te dañ naay njëkk xalif général Baye Fall at mu njët noonu laa koy defe ma wax ko ñëpp bokk xel bi daal Baay Faal mbokk murit yëpp daje fi ñu seetal dëkk bi di ko defar di préparé ngir waajal bés bu màgg bii nu jëm. wàccaay wàccaay yooyu nag bi ci nekkee lu mat ñaareel ñetteet ci la président Abdoulaye Sylla yéege liggéey bi ak ni mu ak importance bi mu am daal di ci am yéene ak taxawaayu bu rafet boo xam ne yéene jooju ak taxawaayam mbob mu andi suñ jataay bii tey yéen ji ak taxawaay bi bi njëkkee ñëw yaakaar naa ne war naa fukki war naa topp de alpha dina gën a leeral ñi ma fekkoon ci saax ne ma dafa am gën ñu lay seet xamu nu mu demee ma génn keroog ma ngi leen recevoir kër googu ñuy wax ma njaay jong fa la bokk toog ñu wax li Ablaye si la wax ak yéen ji ak lépp ñu maan ak ñoom ñu wëgg Cheikh Bass Cheikh Bass xamal ma ne ma yëgoon naa ko waaye maa leen yebal ci yow àndal ak ñoom liggéey bi ma wax leen niñ ko bëggee wax leen dëkk bi ni mu toll wax liggéey bi importance bi ci nekk ñu defee ko noonu nañ ko nañ ko waxee woon lañ lépp ñu def ko ba liggéey bi dox doxin wu rafet bi ko defee man ñaareel wala ñett la sama jarbaat bii di sama xarit di Assane la ab di rek président Abdoulaye président Abdoulaye dénk ko société bi muy directeur bi bi mu ñëwee nag mu yokk ko lool yàkkali ko lool gën koo defar lool ndax Pastef bi ci dëkk bi ak yéen a xam gi mu xam yéen ji président Abdoulaye am ci dëkk bi waaye nag moom itam nu seqaat suñu wàllu bopp muy sama jarbaat di sama xarit tax liggéey bi mu yokk ko lool liggéey bi nag ma di leen xamal ne biñ ko tàmbalee ba léegi président Ablaye jubi jubee li muy wax waa Ecotra mooy nañ arrêté opération yëpp nañ arrêté liggéey bépp matériel bépp dem Touba noonu it lañ koy defee buñ ñëwee ci man lañ dañuy ñëw balaa danañoo tàmbali dañuy fay ñëw ñaari yoon ñetti yoon seet si fan la ñuy nan la ñuy liggéeyee seet si li gën a taxaw seet si barab bi fi ñuy gaare seet si liggéey bi lépp bu ñëwee liñ may wax mooy président Abdoulaye dafa wax ne nañ ñëw bu ñëwee ñun ñu déglu la ne ci say loxo loolu wax ñu def te man itam amul lu may wax lu weesu li sëriñ bi wax li sëriñ bi wax laa leen di wax mooy nan defar dëkk bi balaa gën a sëriñ Tuubaa yi ñëw gi nag ni gën a baaxee lañ koy defee ñoom waaye ko tara ndax dëkk bi duñu fi dëkk bokk ak waa dëkk bi bokk ci waa dëkk bi di dem fépp di dem ci kër yëpp di jaar ci mbedd yi ñoom ñooy xam li gën a soxla ñu nekk ci ci biir loolu Touba Kanam ñu ngi ci wet gi sëriñ Abibu Mbakke ne ca bopp ba ak waa Touba Ca Kanam ñëpp di samay xarit di samay àndandoo noo ànd di liggéey dëkk bi waa gouvernement bi itam jaar ci loxo maire yi maire yi dana ànd ak ofoor ak ñi ñu war ànd ak man lépp ñu ngi koy def li muy wax nag toujours mooy mbirum Serigne Touba moo yaatu yaatu koo xam ne kenn rekk mënu koo def benn loxo mënu koo ngàmb ndax mbirum sunu borom la mbirum sunu borom nag ñëpp dañ ci jàpp man defe ko loolu mooy tax mu mën a dox Serigne Touba daal liggéeyal boromam ba boromam may ko may yu rëy yoo xam ne dafa yaatu lool lool sunu borom moo ko yaatu moo ko may moo tax mbirum ñëpp xaj ci ñëpp bokk ko li nga xamee ne bi muy liggéey liggéey bi moom rek a àndoon te léegi bi mu ñëwee njariñ li ñëpp ko bokk te njariñ li moom sëñ Tuubaa li mu waxal boppam mooy njariñ li ñu ciy gis fi mu ne mi ngi mel ne ndax loo duy ba fees nga sotti ca mu tuuru ci wet gi kon li tuuru ci wet gi rek lañuy gis waaye njariñ dëgg-dëgg ëllëg tax a jóg ëllëg mooy fan mooy bu bàyyi ko ci àdduna si dem ci àllaaxira bi nga xam ne du jeex mukk du ñu fa jógee mukk sëñ Tuubaa nee na foofu la njariñoo liggéeyam di amee njariñ boobu boobaa nag ko liggéeyal fii da nga gis sa wàll ci njëriñ ci njëriñ ci wàll sa wàll ci njëriñ li foofa nga ànd moom da doo tàggu moom kon liggéeyal ko fii am solo la liggéey bi nag li ma koy waxee rek ah président Ablaye def na wàllam ba jeex directeur Assane def na wàllam ba mu jeex waaye mboolem personne Ecotra ak ba ci yéen journalistes yi ñu fi kenn ku ne def nga ci la nga mën ndax bi ñu ngi nii yàgg naa ko wax bis bu ñu bu liggéey bi ba ba ñu leen wax ne nii la ko sëñ bëggoon wàcc ngeen amuñu waxtu amuñu heure amuñu guddi amuñu bëccëg waxtu bu ma soxlaa dinaa ko wax Abdoulahat Abdoulahat wax ko kilifa yi ingénieur ñoom ñëpp ñu ngi fi Abdoulahat a ngi fi Karim moom mi ngi fi mi ngi ba ci mbokk yi nga xam ne ay ñu ngi fi ñuy wax mooy bu ñu wàccee dañuy ñëw ma wax leen fan la war a xëy ak naka liggéey bi demee bis set dañ may woo ne ma dañoo demoon ci ñiy sëkk suuf si ñu di leen wax waaye dañu ne nañ déglu sëñ Seex dem leen ci sëñ Seex lu mu wax rek loolu la ñuy def te loolu moom lañ leen digal moom leen directeur Assane digal moom leen président Abdoulaye digal kon nag dama leen di sant ñoom ñëpp tam biir personnel bi yëpp la sant te tàmbale ko ci kilifa yi muy ingénieurs yi muy Abdoulahat mi dox sama liggéey ñoom muy ñëpp muy al jawriñ ji di Sëriñ Alpha moom itam mu beral ko cantam noonu laay sant yéen waa presse bi yëpp ndax def tam jëf lu mu rëy rëy ñu xam ko dana tax ku ci bëgg a jàpp mën caa jàpp dana tax ñu xam fi ñu tàmbalee ak fi ñu yem ak fi ñuy tàmbalee bu ëllëgee te loolu presse bi moo ñu mën a dimbale kon maa ngi leen di sant ñëpp kon daal ñu xam ne Ecotra ak cantam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te cant gi nag mi ngi ñoo ko xam mi ngi jóge ci Sëñ Muntaxa jaar ci Seex Bass Abdou may seen kaddu di seen ndaw war ko jottali ñëpp ñu dégg sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ndax at mu nekk ñu def loo xam ne loolu la rek doyoon na jëf ndax mbedd mi ñu tax nekk mbedd central la moo xam ne mi ngi jëg kër sëñ Sidi Moxtaar jëm kër daaru mel kër sëñ Muntaxa mbedd mi moo ko boole te moo dox diggante Madiyaana ak Sàmm dox diggante Madiyaana ak ak ak Jantu Mawa fa ba ngay am dem àgg ci te ni jóge ba mbedd mi mboolem lu jógee ci côté Ndar Louga Kébémer bu ñu ñeen yëpp waa Tiwaawan foofu la ñuy jaare ji bu ñu duggee ci dëkk bi bu xatee bu ñu jógee Daaru Musti si rek la ñuy jaar jaari ci ñu doxalee ñu jaar te menn mbedd ci mbedd yi ak yeneen mbedd yi nga xam ne ak central la ñu daan day am importance ci ci dëkk bi moom itam dem nañ fa liggéey fa ba liggéeyal Sëñ Muntaxa ci université bi daaw jéeg lañ ko terrassel mooy li wër jumaa ja li wër poste santé bi ren jii ña fa dee ko terrassé mu jógee dana ko seeti kër Sëñ Tuubaa gi nekk daal mën naan ay gan ñi war faa dal da ña ngi fay terrassé mun fi jógee dana fa dem seeti ko ak dëkk bi yëpp nag amuñu fi ñuy yem dañuy liggéey bu ñu egsee dañu mën naan ñun ñoo ngi ci seen loxo dala digl ba màggal gi tey ñu ba mën a duñoo liggéey ngir màggal gi waaye bu dul loolu amuñu amuñu wax fi ñu yem kon nag man di ko xamal ñëpp ne Ecotra bu ñëpp defoon na ñoom kon léegi dëkk bi yomb jàll ba léegi rek directeur Assane mi ngi may wax ay yéene yu président Abdoulaye am ak xalaat yu am yu am solo yoo xam ne li muy ñaan mooy ñu dem fi di gën a jëm kanam di gën a man kattan gi di yokk bañ man koo def waaye buñ ci àggee danañ xam ne dëkk bi ku ne am na ci wàll xam ne caaxaan defu ko waaye président Abdoulaye yéeneem rëy na lool nañ fekkee ñu ci des président Macky Sall mooy jiitu wax gouvernement bi nañ ñëw lañ man lépp ñu ngi koy def maire Touba mi ngi ñëw million lépp mi ngi koy def Touba Ca Kanam mi ngi ñëw li man lépp mi ngi koy def day waaye mbir mu sëñ Touba mel noonu dëkk bi ma mel noonu dëkk bi bu ñu seetee téeméeri at dëkk bu ci toll nii te boo wet boo ko jàmm jaar <coughs> bala nga ko génn mat 15 kilomètres loolu caaxaan defu ma mel ne boo jógee Mbacke jëm Daara Moussa boo ko duggee dëkk bala nga koy génn da nga dox lu mat boo jógee yoonu Daara jëm yoonu Touba ngeen dëkk bi dëkk ngeen dëkk parce que jumaa ji ak wet gu nekk fa mu yem na 15 kon loolu xam nañ ni mbirum suñu borom la mbirum suñu borom nag ah, doomu aadama bi yéenam lay am ak jëfe kattanam yàlla àggaleel ko yéenam waaye mën nañoo rafet jortu ci ne yàlla dana àgg lépp ci may may Sëriñ Tuuba amul fa lépp dana àgg kon képp ku ci jàpp mën ngaa rafet njort xam ne Sëriñ Tuuba moo lay fay fii ñu nekk moo lay fay boo liggéey kon man mi fi nekkal nag kilifa nekk fi sëñ Muntaxa nekk fi maa ngi leen di sant seen tur di leen gërëm di ñaan rek yàlla rek Ecotra jëm kanam président Ablaye dund gudd fan kattanam yokk ba lim ci yéene ci Touba yéene ko ci entreprise bi lépp man ko directeur Assane mii maa ngi koy ñaan lool mu gudd fan wér maanaam yokk maa ngi koy ñaanal Alpha mii maa ngi koy ñaanal Abdoulaat di ko yónni mu jàllaleel ma ko ci Karimu ñoom ak waaye pertel bi yëpp ñu ñëpp sant naa leen gërëm leen yéen waa presse bi sant naan gërëm leen maa ngi ñaanal ñëpp yokk ak mucc ak jàmm ak barkeel ba kenn kon ne lañ ne ci sa kanam nga bëgg ko yàlla dimbale defal loo ko na nga ko bëggee la nga ragal lépp yàlla tegal la moom kon maa ngi wax gàllin fi liggéey yokk liggéey bi ñu dem ba liggéey bi àgg fu ñu ko bëgg a àggale jërë ngeen ñëpp maa ngi leen sant leen gërëm loolu rek la ci maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Alpha Samb di ingénieur polytechnicien nekk directeur technique bu Ecotra Euh, at mu jot le président la Sylla euh, yónni ma ci njaboot gi bu waxtu yi jotee pour que li nga xamante moom la ñu sant ñu wax ko sëriñ bi ren 2023 nekk juróom-ñaareelu édition ECOTRA ak le président Ablaye la di def saa yu màggal jotee le premier safar mu ne activité boo xamante ni bi Ecotra doon na ko def na ko aj matériel bu mu am ak personnel bu mu am nañu jël ñëpp lépp ñu yóbbu ko Touba teg ko ci loxo sëñ bi sëñ bi moo xam nu mu ko bëgg a jëfandikoo mu jëfandikoo loolu ba màggal gi bu ñëwee mu mën a nekk ci condition yi nga xamante ne moo gënal sëriñ noonu mu ko daan defee at yi passé noonu la amee taxawaay bi ren ba tax na euh, bi ñu jubee premier safar Ablaye yónni ñu fi le président ne dem ngeen wax ak sëriñ bi mu wax leen lan la gën a bëgg ci liggéey bi ngeen taxawee noonu jox ñu ndigal na chantier yi ngeen amoon yëpp ni ngeen ko aj ni ngeen ko daan defee suñu matériel yëpp na ngeen ko yóbbu Touba suñu ingénieurs yi suñu techniciens yi suñu conducteurs yi bu kenn des na ñëpp ñëw Touba nekk leen ci waawu sëñ bi lu mu leen diggal ngeen def ko président Abdoulaye Sylla yónnee na lu ma téeméeri nit cent personnes yu jege suñu bureau yi ñëw fii tubaa président Abdoulaye Sylla yónnee na diggante ay engin ay camion ak lu ko xeetoo lu mat juróom benn fukk ak juróom équipement le président Abdoulaye Sylla yónnee na fi ñeenti pompe hydraulique yoo xamante ne bu ci nekk am na débit cent cinquante mètres cube heure yenoon nañ fi benn hydrocureur boo xamante ne bi dafa autonome tout terrain bu am mband boo xamante ni bi dana jël trente mille litres président Ablaye Sylla nee na loolu doyul mu jënd équipement yoo xamante ne dañ koy utiliser ci nettoyage lu mat juróomi téeméeri brouette ak junni pelle ak junni pioche teg ko ci loxo sëñ bi nee na moom bu sañoon lépp lu Touba yittewoo kàttanam may ko ko lépp moo koy def nañu nag yéen ñi nga xamante ni yéen laa yebal bu ngeen demee bu leen bëccëgal bu leen guddeel nekk leen ci waaw sëriñ bi lu mu leen sant waxtu mu leen ko sant li ngeen ci mën na ngeen ko def li ngeen ci mën na ngeen ko jéem ba ñu ñëwee ba léegi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ŋànk entreprise bi ñëpp ñu ngi fi DG Assane Sylla mu ngi nii suñu directeur yëpp ñu ngi fi directeur de ressources humaines directeur financier directeur des études ñëpp ñu ngi fi chef de département yëpp ñu ngi fi ñu yore infrastructure ak ñu yore building bâtiment ouvrier yi kenn desul ñëpp ñu ngi fi liggéey yi ñu amoon faneen yëpp dañ ko aj pendant trois semaines yi jiitu màggal gi ak semaine bi nga xamante ne moo topp ci màggal gi ndax liggéey bu war balaa màggal gi ñëw dinañ ci taxaw bu màggal gi weesoo liggéey bu war pour delloo dëkk bi ci cet ga mu wooro dinañ ci taxaw ba bu ñu demee li nga xamante ne mooy li war ci cet ci dëkk bi ñu bàyyi ko ni ko sëriñ bi bëgg donc loolu sëriñ bi Abdoulaye Sylla nee na li mu def lu mu xeeb la lu mu xeeb lool la waaye nee na lu ko yàlla may lu ko yàlla may moomu ci dara lépp sëñ Tuubaa ko moom lépp xalifa bi sëñ taxaa moo ko moom ndax sëñ Muntaxa mooy sëñ Tuubaa nee na jotuñu si sëñ Tuubaa nag yow cheikh bi Cheikh Abdou Latif Mbacke nee na lépp yaay borom te rafet rafetlu na lool ni nga xamante ne ni nga téye njabootam rafetlu na bu baax ni nga téye jabootam ndax ba ñu ñëwee ba léegi taxaw ni ñu taxaw yombal gi nga ñuy yombalal suñu toogin ci dëkk bi weesu na suñu jot weesu na suñu yortu lool rafet na lool te lépp Ablaye la yëg na ko ndax nettali nañ ko ni ñu téye di ñuy jàppe ba tax na ouvrier fi nekk yëpp ku si nekk la ngay def xool nga koy liggéeyee cawarte nga koy liggéeyee bëgg sëñ Tuubaa nga koy liggéey amu ci kenn ku ciy tricher ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla dool di la sàmm la bu baax di lay yon yabante ci sëriñ bi na ko ñu ngi koy ñaanal wér di ko ñaanal fan bu gudd ni mu jiitee njaboot gi njaboot gi yëpp kontaan nañ ci yàlla na ko yàlla dool di dëgëral yàlla dogal ki yàggal ko ci kanamu njaboot gi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax di sàkku sa ñaan di sàkku sa ñaan di sàkku ñaanu sëriñ bi ba yàlla may ko li nga xamante ni mu ngi koy def ba tey mu am yéene yal na ko yàlla may ba at yii di ñëw bu ci dugalee loo xam keneen du dootu gis loo xamante ni dana ci mën a jot ba di ko ci liggéey ci dëkk bi yal na yàlla may ko loolu ñu ngi koy ñaan ñu la koy ñaan di wax sëñ bi ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax a baax Ablaye Sylla amul moo ko wax boppam nee na lu mu am moomu ko sëñ Tuubaa